on va continuer dans tous les substituts qui relèvent de notre département pour que ensuite bi ñu recevoir copéoles, nous nous ñu wax ñu mais nous avons sol d'abord ministre de l'agriculture le ministre des finances nous avons disposition pour que parce que les problème yi que nous avons ndax dafa contractuler ay paysans jox leen jiw jox leen engrais jox leen intrant yëpp nawet bi baaxul ñooñu mënoon a wëlbatiku ci biir seet beneen liggéey bu ñuy def pour jéem a fay loolu far mbas bi tënk ñëpp kenn mënatul dem kenn mënatul dikk donc COPEOL moomu bi muy jox ñooñu dafa leb ci banques yi moom itam ndax yorut kees gu dul jeex bi mu lewee ci banques yi ñooñu fay ñu ko du mën a fay banques yi plus dette intérieur boobu état bi yoreel na ko ko ñu ni kii nañu ko accompagner. pour que vraiment nous mën démarrer waat activités normalement mais aujourd'hui le président de la république peut faut comprendre qu'il faut fonds de résilience agricole Il le budget ministère de l'agriculture, il faut que intermédiaire yooyu nga xam ay population la yu contractualisé ak COPEOL que seen dette boobu it état bi mën ko jël dimbali leen ci comme ni mu les transporteurs yi touristes yi les ko donc étape boobu dafa manquer. et si le gouvernement n'est pas bien informé mais du ko c'est ça un des objets de notre visite pour venir sur le terrain xoolal suñu qu'on suñu si nous, demain, on va se réunir en commission des rapport interpeller pouvoir yi wax gouvernement rencontrer le ministre de l'Agriculture, pour que problème soit nga une solution nous trouver pour que paysans bi gagné la population bi gagné ci mais COPEOL bi nga xam itam sénégalais ont ñu bon temps fi investir parce que ku de li ñu def investissement am contractualisation heureusement que les copains xam nañ ko ñu paysan bi bu yëpp contractualisé nga jox ko jiw jox ko intrant yi engrais beeg yëpp su béyee ba pare nga taxaw mu jël récolte am fay la sa bor jaay la ko su boobaa chinois bi du ci jot. bu ko defee aussi état bi gën a organiser wu pour que chinois bi am période boobu ci lay tàmbalee jënd ak période boobu ci lay yem arrêté jëndam bu bàyyee ba suñu industrie yi jënd ba nga xam ne am nañ li ñu am surplus ba ñi ci des ñëw jënd ko. waaye ñooñu bu ñuy dem ca tool ye di jënd même ba ca buntu tool ba ça pose problème.